mais ki nga xam ne mooy moo njëkkoon a wax balaa moom. Euh, euh, kii di Barthélemy Diaz. newoon na dem bi ñu dem di waxtaan ak président Macky Sall di jëmale ci dialogue national. dafa bëggoon pour candidat yëpp bokk y compris Ousmane Sonko. oui coow ba ñu am. waaw loolu waaw loolu Babacar loolu lu normal la xam nga même boo àndeek ay nit il faut ñu am ñuy négocier man mii damay négocier président Macky Sall dinaa la ko wax. toujours ñu ngi ñu ngi maa ngi wax di wax ak ñi ko jege ñëpp waaye ay nit bu ñu àndee ci dara ni dañ koy waxandoo yëkkateendoo dóorandoo tegandoo te yéen ñëpp juboogu leen ci kàddu yow nga rocceeku dem loolu bu dul lan mooy trahison Barthélémy Dias loolu mu wax mën na nekk même bu ko Ousmane Sonko yéegoo bu ñu demee ba xam ne Ousmane Sonko d'accord ci te ñoom ñooy minorité majorité bi d'accord ci kay logique bi mooy ñu dellusiwaat ci majorité bi parce que politique majorité la ñuy topp askan wi appareil la boo xam ni ñoom ñëpp unanimité dañu wax ne demuñu ci dialogue bi bennum taxawul ndakaaru ñoom ñoo génn dem loolu man dama jàpp ni trahison la te ñun information yi ñu am ndax réew mi dafa xat Sénégal ñëpp xamante yaa ngi dégg man am naa ay xarit fu nekk man li ma gëm mooy Khalifa Sall bi mu commencé wax ak Macky sàll yàgg na ñun bi mu commencé wax ak Macky Sall jiitu na dialogue bi loolu il faut ñu wax ko pour histoire donte mënta yàq dara ci projet Ousmane Sonko mon la gëm ak ci projet yewi Askan parce que ko maturité ak ak fayda dañ minoriser def communiqué il lim def mom la engagé mais engagé une coalition bi ma ngi profité di nuyu leader yi fa ku doyen Habib euh, bloc li Ousmane Sonko waxone ci brigade de recherche ñun ci logique section de recherche section de recherche ci logique boobu lañ nekk mooy nan la ñuy fexee ba ñëpp ci réew mi képp ku bëgg a nekk candidat ñu bàyyi la nga nekk candidat waaye du Macky sàll moom mooy sélectionner ay candidat si njëlbeen bi neewoon nañu gannaaw bi euh, di euh, Barthélemy Diaz yëkkati woon ay kaddu yu mhm. xaw a ñegas tuuti ñu ne kaddu la yoo xam ne ça ne concerne pas mhm. Khalifa mos naa dégg sax kenn ku nekkoon muy yum nekkoon ci benn émission ne na xalifa sax daf ko dànqaa dànqaafu mhm. donc bu ñu gisee tournure yi parce que tey gis nañu barki démb ki di Abba Mbaye mhm. taxaw ci assemblée nationale ne mhm. bu dee traîtrise la assumer nañ ko mais xam nañ ni l'histoire leur donnera raison donc en quelque sorte li Barthélemy musuta réeru ak xalifa ci yii xam nga man li ma gëm sax Babacar ma wax la ñaar Barthélemy moom moo ëppoon sax proximité ak Ousmane Sonko ka xalifa Sall Barthélemy mom man dama japp ni euh, li am lu meuna a am man am xeyna xadaram suis ko ak demb ci amatul ak Ousmane consensus ak politiquement nga comprendre Barthélemy ci contexte suis nek nekk Barthélemy cassation la nek te ku ne ni ku melni je Macky Sall bu ni trop mel Ousmane Sonko peut taxaw résister bo amul chance di nga céder man dama japp ni Barthélemy dafa cédé devant Macky Sall parce que chaise am lay sauvé motax tax man kaawu Barthélemy dama ko comprendre dañ ko fal maire Dakar mu am dossier justice bo xamni ni nii gëm na ni à tout moment man nañ ko daaneel donte bu xeexoon gëm naa ni mo upp ci mom mujj mom mu gëm ni dem négocier ak Macky Sall pour sauver chaise am moko gënal motax tax Barthélemy da koy nangul lenn moy lo mën wax xex kat la amna na lu mu gëm am na lu mu gëm loolu mooy dëgg ndax amna divergence ak Ousmane Sonko nit man ngeena nek ngeen di am divergence yaa ngi mais mais kaw Khalifa Sall man moma gëna déranger. parce que Barthélemy euh, kaw Khalifa Sall mom ñun preuve yi ñu ci am ak information yi mo yag na di discuter ak Macky Sall ci souf te yewi askan wi yeguñu ko. lolu mom il faut ñu wax ko malgré nak ciow li bari na ñu ngi sa ñu ngi ñu ngi recevoir ay menaces. muy jóge fu nekk rawatina surtout menaces yu jëmee ci yow. ci sa jëmm ñan ñooy ñi nga xam ne ñooy menacé exactement. waaw xam loolu dafa baax. man ku ma xam Babacar avec modestie. xam sama avec modestie fa ma juddoo. ak tuuti sama jaar-jaar xam ni man du ay menaces moo may noppiloo. ñun pendant douze ans ñu ngi xeex ak Macky Sall mu yor police yor gendarmerie yor doole ji yëpp ñu taxaw di ko résister kon du ay benn boy yoo xam ne ay boy yu ndaw yoo xam ne leer na ma ni ku ma ci xool nga daw. man xam naa ni man góor dëgg moo may affronté ci ku ma xam moo tax menaces yooyu joxuma ko benn importance comme nag ci république lañ nekk baax na yu mel noonu. nga wax ci mais lu tax ñu lay menacer exactement. parce que li may wax mooy déranger xam nga menaces yi li tax mu neex ma. Mm-hmm. benn côté mooy bu doon li ma wax nii xalifa Sall dafa trahir Ousmane Sonko devant l'histoire parce que liñ bëgg a wootee xalifa Sall ak Macky Sall ñoo ci nar a ànd ak Benno Bokk Yaakaar. loolu dafa am dafa leen a déranger moo tax ñu ñu ñu ñuy def ay menaces jëme ci man mais nag Babacar man ku ma xam-xam ni man man duma ku ñuy menacer man réew mi ci laa dëkk yaa ngi dégg avec modestie kenn ëpp ma fii mbokk man ku may menacer xamoo ma tayit it te man du koy kuy sama bop man non dama bëgg ñu ah. dellu wat ci. Mhm. jamono yi ñu génnoon amoon nañu yaakaar bu reuy parce que mhm. déggoon naa. Mhm. ñu doon wax ni euh, imam ak ñeneen ñu jógee euh, ki nga xam moy président Macky Sall. ño doxoon jamm pour nous décanter situation bi une barricade yi nga nous ne fait des nous que ko kër Ousmane Sonko nous ko ne décision de justice Nous discussion waxtaan fu mu choses. waaw Nous dafa nga occasion man malgré mes positions ñëpp xam nañ ni dafa positions yu vers le régime du président de la République mais man dama président Macky Sall man du sama ennemi on est des adversaires politiques ñu am ci ay xarit ñoo xamni ne ñu ngi ci biir coalition maa ngi ci profito di nuyu ku melni ni sëñ Mbacke Ndiaye man ñom ñep la xam parce que man président xam naa ko mu xam ma xam sama famille ma bokk ci ñi jappali ci walu politique Bima démé ba xamni projet am doyatuma ma am courage wan ko ginnaw. taxaw def ak mom face mu xam ko kon koku am nañ ay relation yu dëgër yo xamni politique du ko yàq kon bima di gisee dëkk bi di yëngatu man toujours damay mus di jël samay responsabilité di anticiper parce que man bugguma benn sénégalais faatu ci réew mi bugguma kenn yàqule ci réew mi parce que loolu nag avant ñuy def politique ñun ay nitu diine lañ ay doomi daara lañ nekk ñoom dañoo war a nekk ay régulateur société ci laa waxtaan nag ku mel ni sëñ Bakke Ndiaye ginnaaw bi mu ko sàkkoo ci man ci ndigalu président de la république ñu dem seeti mun euh, Mountakha sunu kilifa googu xafisahullah wa ayyadahu wa nasara ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal ak mbooleem xalifa généraux yëpp parce que ñoom ñëpp man samay baay lañ man Touba ni ma fay demee noonu laay demee Tivaouane ci xaddara Seydi Hadji Malick laa yaroo waaw ça veut kon bi ñu demee seeti sëñ tax maag sëñ Mbacke Ndiaye ñu waxtaan parce que ñun dañoo mës a gëm ni mbir mi ci kaw taabal lay réglé woo waaye du réglé woo ci acharné wu ci kaw nit wala bugg koo jaay doole wala bugg koo bugg koo xoqatal moo tax bi ñu fa demee fekk fa kilifa gu mat kilifa mu dalal ñu ñu wax ko problème bi yépp mu mu ni ma dégg naa li ngeen wax ginnaaw bi ma waxee sëñ Mbacke Ndiaye wax man tamit ma wax fa défendre fa président Ousmane Sonko ci ngor parce que xam naa ni comme nekku fa man maa ko fa nekkal sëñ Mountakha ci boppam ni ma lan nga yaakaar ne bu ko defee jàmm am ma ne ko Mbacke de jàmmi réew mi bokk na ci président Macky Sall wax ni mënul nekk candidat loolu sëñ Mountakha bind ti bind noté ma ne ko ñaareel ba bokk na ci ñu rassurer candidature Ousmane Sonko parce que candidat la boo xam ni réew mi def cee am yaakaar euh, jeunesse bi am ci yaakaar nitu diine yi am ci yaakaar ñetteel ba mooy détenu politique yi ñu jàpp ñu bàyyi leen gannaaw bi nag lañ gis ni gannaaw bi président mag Sall jóge Touba gis nañ ni def na benn bi ñu ñu rafetlu ko trop di ñaan nag mu continuer lancé boobu ñun nag bàyyiwuñu man ba nii may wax ak yow maa ngi xëy di gontu di dox di wax pour ñu fexe barricade gi barricade kër Ousmane Sonko ñu bàyyi ko parce que amul benn décision justice boo xam ne ni euh, kayit la boo xam ne bu légal la boo xam wanee na ni dañ ko war a def yaa ngi dégg kon président encore une fois man li ma gëm di ko wax mooy jàmmi réew mi nekkul ci benn loxo sa loxo la nekk jàmmi réew mi bokk na ci ñu rassurer candidature Ousmane Sonko man loolu laa gëm parce que ñii di la wax naan euh, fexeel ba ausman Sonko bu mu bokk ñoom ci boppam bu mettee doo leen gis bi réew mi tàkkee ñu ci bari dañoo dawoon dem Mbuur tëdd fa ñenn ñi dem Maroc tëdd fa yaa ngi dégg kon yow amatoo looy perte li nga waroon def yëpp def nga ko nee nga doo nekk candidat bu la kenn dugal ci élimine candidature Ousmane Sonko parce que boo gisee candidature Ousmane Sonko nag dafa déranger classe politique bi yëpp d'une manière général Babacar parce que yemul ci APR rek wala benn bokk yaakaar même ci biir au sein de Yewwi yaa ngi dégg am na ci ñoo xam ne xam nañ ni bu Ousmane Sonko nekk candidat amuñu chance su gagné moo tax ñu ngi def lu ñu man ci biir ak ci biti pour di def le tout di convaincre mag sàll di ko xamal ni ko nañ fexe ba Ousmane Sonko bu mu nekk candidat loolu nag ñun mënuñu koo xam ba pare di ko noppiwaale sunu yu ñu ko suñu sunu yu ñu ko. loolu du ay menaces mais est-ce que buñu xolé tamit. ay menaces moo ñu koy wax. Ousmane Sonko ak Pastef tamit est-ce que ils n'ont pas trop laissé faire. Mm-hmm. parce que euh, expliquer nga ko Khalifa Sall expliquer nañ ko lu melni bien avant loolu waxon nañ len euh, comment il s'appelle ñu bari ñi nga xam dañ nekkoon ci yeewi askan wi tax tay ñu jox len ndombal tank gis nañ seen taxawaay tey gis nañu suñuy discours. discours yoo xam ne c' est complètement contre Ousmane Sonko alors que amoon na ay signaux wala amoon na ay alertes yoo xam ne nit ñi defoon nañ ko wax leen ni moytu leen lii. waaw xam nga en réalité il faut ñu dellusiwaat ci contexte bi yeewi juddoo parce que contexte tamit Ousmane Sonko bi mu nekkee ci jafe-jafe li histoire wane tamit mooy classe politique bi yëpp wala li ci ñi ci ëpp dañoo defoon benn bloc ci wetam ñëw taxaw jàppale ko ku mel ni ñoom Barthélémy ànd ak moom xeex bi yaa ngi dégg. ñu mel ni ñu classe politique bi kon ñu gëmoon ni mbooloo mooy doole ñu ni nañ def benn bloc pour fexe ba Macky Sall dootu fi xañ kenn mu nekk candidat et puis boo xamee président Ousmane ñun ñu ko jege Ousmane nit la ko xam ne xolam dafa set Ousmane Sonko nit xolam moo koy tooñ parce que ñun man yàgg naa di ko def alerte ni ko maytul gars yi wax dëgg yàlla billahi yàlla rek moo may wax korog bi ñu bi ñu dama ko sitel ay tur ni ko ñi da yag rek may dañ lay war munuma imam nañu sellal rek sunu yéene di def ci ñom ay témoignage yu bax gis nga ku melni khalifa sallimi heure buñ ko musa na tuddu muni eh, ay deg na al khamis sax da koy wor parce que Ousmane Sonko genre nit bobu la du nit ko xamni ni day ñaaw njort ci nit day rafet njort ci ñëpp yaangi deg amna ci yo xamni mom xamone nako waye dafa ni euh, amna lo xamni duñ fa ag waaw jàppoon na ni mom rew mi moko taxona taxoon kon génération bi mu àndal yëpp war naa mën a ànd ak ñoom pour ñu tabax réew mi musul jiital intérêt partem wala intérêt ay nit ci Sénégal. wax nga waxu génération man bokk na ci génération conflit de génération bi nga xam ne dérangé na ma mhm. mooy Mimi Touré ma nekkoon ci beneen boor ba di ko yekk lu mel ni xamee matin midi soir mhm. mi nga xam ne bu tey bu yéenee mataloon euh, tey Macky Sall day dem ci troisième candidature mais au delà de ça moom dafay nekk élément central mhm. tey mu mel ni tey mooy bàjjanam noonu noo ko jàngee waaw xam nga loolu dafay wane grandeur gis nga réew boko ko bëggee tabax il faut nga am grandeur babacar ñun suñu référence mu yonent bi alayhi wasallam da daan balé kaab ñi xam histoire kaab xam nañ ko da daan ŋàññ yonent bi alayhi wasallam korok bi mu ñëw ci keppaaru yonent bi xamal ko ni ko réccu naa regretté na yonent bi dafa décréter ni ki à partir d'aujourd'hui nañ yor sécurité ñun même Touré ay principe moñu bolé won mais du jëmmé même Touré ci bañ démé ba nga xam ni principe yooyu ñu boole woon ñëw fekk ci nañu mooy ñu fexe ba mag sàll du am troisième candidature ba mu ñëwee rek ci lañ fàtte lépp lu mu defoon te du Mimi Touré kese Ousmane Sonko tàllal na loxo képp koo xam ne yaa ngi biir APR te sa loxo set nga war a mën a ñëw ñu ànd tabax réew mi parce que ñun nekkuñu fi di fayonto wala di rancune Ousmane Sonko nee na lépp lu jëm ci sama jëmm ci baale naa ko lu jëm nag ci wàllu justice wala yu mel noonu loolu mënu cee dugg parce que loolu justice moo koy gérer te loolu mooy discours diine. suñu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul lu ne teg nañ ko ko mais bi mu ñëwee lu mu wax afawtu anil aada i turan jéggal naa samay noonu yaa ngi dégg kon Ousmane Sonko lii différence am ak ñeneen ñi dafa jàng diine am xam ko xam texte yi man koo interpréter boppam du politicien boo xam ni maanaam na ma yàlla baal salaatu ala nabi sax mënuñu koo wax ku yàlla préparé la dama gëm ni pour Sénégal moo tax Mimi Touré bi mu ñëwee dañ ko intégré